الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي طالبي بوكي جولي في داجي ييب نوغي لين دي نويو نوغي سياري جابوتو سيرن توبا كي نيك سي كاو دي نويو بوكي طالب ييب دي واخني دانكا جمله بي ماي فارال دي واخني داماي واخني lisaanu xaalil jalsa ablaq min lisaani maqaaliha gis nga jataay bii nu toog lisaanu xaalam moo gën a leer fuuf làmmi yi ñuy waxe lisaanu xaal bi mooy jataay bii xam la ne ne njabootu sëñ Tuubaa gi nekk ci kaw yëg nañ ndono li nga xam ne moom lañ leen donale yëg googu ñu ko yëg nag ba taxawe ko nar koo yégal njaboot yi topp seen gannaaw ma ne lisaan boobu moo gën a leer lisaanu bu ñuy wax ci làmmiñ ndax yëngu bu waaye mën a yëngu fii te fekk na ñu donalee fi yëguñ ko yëngu booba day mujj naax saay kon yëg gi nga xam ne yëg nañu ne seen ndono lii ndonol Sëriñ Tuubaa li la ñu yëg ko taxaw ci ngir fas yéene ko jàllale fa ko seen maam bëggee woon ma ne loolu day moom dara gënu ko rëy dara gënu ko neex sant nañ ci nag bu baax a baax fiñu tollu nak dañu tollu toll jamono jo xamne ubbi xel yi dafa bax lol waye am kilifa yi nak jotna fa kullu man adima sayqan mursida fa sayqoo saytaanu ay ay su xasada nit ko amul kilifa ku ne saytaane moy don sa kilifa jotna nak nit am kilifa jamono bi nu nek nak ku ci amul kilifa gis nga gaay yi taxaw ndax kat yàlla dafa wax ne wa ja'alna li kulli xariyatin akaabira mujrimiha akaabiri mujrimiha nag koo ko firee ku may ab politicien xamoo ki muy wax akaabira mujrimiha koo ko firee ku may ab politicien xamoo nit koo xam ne li muy wax du bokk ak li muy jëf lim gëm bokkute ak la muy waxee li muy feeñal bokkut ak la mu nëbbu kooku boo ko tuddiwut akaabira mujrimiha xamoo sax yàlla yoo kan te lépp loo gis mu yàqu ci société bo demee da nga fekk ni politiciens yi ñoo ko yàq mboolem politiciens yi ngi gis yi képp ko ci xamni ki kii jar na tax nga woyofal sa kilifa wala nga woyofal sa diine sa bis a ngi ñëw ndax ñoom de fu ñu taxaw tay bu suba bo ñëwee doon fekk ñom te lo xam ngeen gis xam ngeen ci dara kon nak li warna naa ubbi xel yi bu baax nu delluwaat nag ci sun kilifa yi déglu leen ta xol leen tayam ci ñom kon aduna ala alaaxira fi nekk wabtaqi fi ma ataka lahu al-akhirah way wala tan sa nasibaka min ad-dunya al-akhirah mom la la ci war dang ko def way bu mu tax nga sagane sa adduna mi ñi nak ñi nak delo nañu ci gannaaw la taxone seigne touba ñew la taxone seigne touba mer ba tax mu futti futtiku won taxaw taxaway bi mu tak ndigam préparer jamar lo gi fi nekkoon yépp ba daan leen taxawal lii ci diir bu gàtt la taxoon mu di ko def ma ne loola dellu siwaat na te dafa mel ni sax tey la ëpp doole boobee Moussa Kanaan lislaam di jooy yikket ba génn gàddaay ci sowu ka ci sowu jant ak fépp mel ne ak daay ak daay waa loolo loola dellu siwaat na ndax ndax ginnaaw kaa ngi ki fóore kaa nga ki fóore sax di jaani laay la waxoon kaa nga fóore luy gaañu ki fóori Tijaani mooy dëkk bii di Touba Serigne saa ngi nii taxaw woo mbooloo mi fas yéene waxtaane diine ji wax fas yéene leeral mais mboolu politiciens yiy ñëw ci seeni i kilifay diine la jaar jox leen alal ñu jaar ci seen kaw yàq li ñuy def te ci mën dara te loolu man xam naa ci lu ma leer xam naa ci lu ma leer am nañ am nañ yéene yu baax am nañ bëgg-bëgg bu baax waye am nañ nag ñu leen supérieur ëpp leen katan ëpp leen doole man leen ta dañu jàkkoor la président di wax ak ñom di wax ak nguur gi di jël xaaliss yi di ko lek di def leen neex te ñi duñ ci man dara waye wax nak mom señ bi def ngeen ko seen jaan wàcc leeral ngeen doomu adamay wan ngeen leen yoon liñ wax fi lepp nak de ngeen ko señ Tuubaa seen sëriñ dafa am lu leen wax dafa wax ne xultu waxat harama rabbuna ala كل مكلف على ما نقل فهلا بخير هلمه بصري فيه فصد نفس الدليل القطعي من كان جاهلا بفرده ولم <coughs> يظل فنفسه أبدا وسلم سيد توبا نينا يو يلا دفلا أرامل تيو ميبو مبير موي دف مني سو خمي خمو خمو لا يلا أتي تي مبير ما سيد توبا نينا لول دفا أرام تيو نغا كيب كو خمني خمو نك لا جوك خم موسى كان من خمو لا يم kon mbooleem li ñu wax fii lépp mooy kon dey tekki ne lii ñu tëral nii man xamuma ko yéen xamu leen ko mooy sa sëriñ nee na loo xamut na nga ca teey na ngeen watee non ba ba ngeen di xam lii lan la na ngeen watee non jërul laq-laqal jërul nëbbutu jërul dara na ngeen watee non parce que xamuloo ko sa sëriñ nee na bu def loo xamut du caagee ne da ngaa contre Macky Sall du kan da ngaa contre kenn da ngaa kenn sa sëriñ daf laa wax ne lépp loo xamul ab atteem ci diine bul ko def te yéen xamu leen loolu makki Sall na kero ba mu ñëwee fii ba Obama ñëwee fii dégg ngeen la ma ko waxoon ba Obama waxee ba noppi daf ko ne pour la moment ma ne ko mooy ñëwit nag pour la moment ak si nañ ci nag tey na ma ni bis bi dana ma ne ko pour le moment nga wax dégg la de mais nu it pour le moment si na nag tey pour le moment ji nag ñëw na li ñuy wax ci biir lépp a ngi ci am leen fayda ju tol ne am leen fayda ju tol ne kuy doyee dal diine kuy doyee dal diine baa nga di ko manquil waroo bokk ci nekk ci ëttub sëñ Tuubaa bii moom sëñ Tuubaa mii waroo nekk ci ëttam bii feneen nga ko war nekk waaye ëttub sëñ Tuubaa mii kuy doyee dal diine waru fee nekk ndax itam kat xusóor yi xalat wal ahlu an ñi tafarraqat bi mat yi lës yi anwul ma diyu xasin sëñ Tuubaa taxaw ne ah walay sama kër tas la sama njaboot tasaaroo na ñàkk naa li ma amoon lépp dara waralu ko lu may yàlla ak yonente yàlla ak yonente kooku kooku kenn du ko am kenn du ko am di ko doya daal di ko jënd yu ñàkk fayda yi yéen nag dama bëgg ab murit ab murit day am fayda sëñ Tuubaa nee na murit day am fayda day farlu ñett yi la wax sëñ Tuubaa nee na murit day am fulla murit day am fayda mu day farlu nee na fulla mooy lépp looy def na ko seet ba sa njariñ nekk ca nga doon ca dugg nee na fayda mooy lépp looy def boo dee ba sa njariñ nekkatu la nga am fayda taxaw farlu mooy looy def wutal ko waxtu bu jotee nga defi ko kon am nañ ay kilifa ñii de wane nañ yoon te xam nañ ne wane nañ yoon bëgg nañoo lëggéeyal Sëñ Tuubaa itam lëggéeyal Sëñ Tuubaa jamono bii nag day laaj xam-xam day laaj alal day laaj doole day laaj xel day laaj waxtu day day laaj taa day laaj lépp kon nañu àndandoo kilifa yii wax nañ nag baat boo xam ne ngeen ci bàyyi xel nee ñu nee ñu ndigal amatut waaye gis nga bu ndigal amatut bu ndigal amatut xam leen ne yéen yéen ay rab yi ñuy rëbb te dañ leen jàpp yéen xam sëñ ba Jaxate dafa wax ne xam ngeen la tax rëbb baa jóg Rombu bëy wët wi gis rab dal di fetal am sàmm ga ko waral gis nga mune xam nga la tax rebb ba juk rombu wi gis rab dal di fetal am sàmm ga ko waral am ma tax bëy wët wut waaye sam sàmm waral kewel na janjang te kenn néewut ki ray lu waral kep ko ci xam ni wax nañ le bul am kilifa ba nga nangu ko mi la le bul am kilifa xam nga nu mela ñetti nagge anak, ya. ñetti nagge nak ya nag bañ àndee gaynde gi bëgg leen lek leen dara dafa ñew ne nagu ñuul yow mi kat dafa wax ñaar ñi neen nagu ñuul yi kat da ngeen xam ne bu ñu ànd ak ñoom bëccëg mo ñuy feñal bayi leen ma ray ko ndax ñuulaayam bi ñu ne ay ci mu dal di koy ray dal di ñewat neen ne ne ne ne xong wi eh, wex wi kat xam nga ne bu guddi bu wex weexaayam bi mo ñuy feeñal bàyyil ma ray ko mu ne ay ci ba ci ëllëg mu ñew ne ka ah, yow nak bettu ma la duma yow duma lay sama diggante yow mu ne ko bayil ma wax mu ne ko mu ne mu ne ko waxal mu ne ko ba nga lekke nak mu njëkk wa nga ma lekkon <coughs> waaye gis nga serigne bi li ngeen def lu baax la si am satu am nañ seen yaakaar ñoo ngi leen di bàyyi xel waaye wa defee na ngeen ñoo leen di bàyyi xel baax ndax ndaje mi sëriñ bi lu ko gën a rëy amut fu ñu ko defee baax na waaye ñu defee ko Touba nag xam lii ban poids la amee danañ xam lan lay tekki wante man de lenn rek laa ci laa ci ragal sump ga dey ba ko law ba bay gàjji si ñëw yor ak weñ daa ree ne ko ne kii moo ñàkk fayda rek mu dem andi am riis mu ne kii mu ñàkk fayda rek lu ne mu andi ko mu ne mu ñàkk fayda rek waaye ba mu ko séenee muy mu yor sump sump njuru sump di ñëw mu ne deenaa de sama mbokk nga ne di ñëw di njuru njuru sump ba mu yor séenee yor mu yor njur wi moo xam ne njuru sump la njuru sump gi ne deenaa de kee de bu ñëw may dee loolu rek laa ci ragal kon yéen ñi nga xam ne ay député ngeen ay député ngeen tey ay julit tey dem fa nga xam ne fa la ñuy watee rawatina yéen ñi dëkk Touba ngeen di dem fa ñuy watee dégg nuy wate loolu bu ngeen ko xamul ngeen jàng ko bu ngeen ko xamee ba noppi dem ba foofee ñuy wate lii tam wóor leen ne du dëgg xam ngeen li ci nekk ngeen nangu ko bu keroogee bu yàlla taxaw yoneen taxaw Sëñ Tuubaa taxaw bu keroogee yéen lu ngeen di wax su ngeen àggee lañ fay wate xam ngeen ko koo ci xam ni kii mënaloo leen dara it na nga wax noo ba ñëpp séen la ñun ñi la ñu xam ne noo nga wax bu keroogee ñu xam ne yow si jaan wàcc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 ci daje gu giñ ci daje. sëñ solo lu ñu waroon a ñaan waa ñooy ñaan euh, déclaration bi nga xam ne Serigne Cheikh Ouna loolu la ko jànn ci français sànq ci suñu daal di jànn ci wolof mbokk yi nga xam ne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 rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbooloo mi ñu ngi leen di siyaare di leen sant ci turu e, kuréel yi fi daje booloo e, def déclaration bi ñuy tam ñuy wax ci turu sëñ Amsa moom sëñ Abdoulaye mi nga xam ne moo jiite xuddaamul xuddaamul xadim xuddaamul xadim nag di mbooloo moo xam ne tur wi dafa leer mooy ñuy liggéeyal kiy liggéeyal yonent bi muy Sëriñ Tuubaa euh, ni ngeen ko xamee bi yàlla dogalee euh, projet bii génn ñu liir ko ba da daataa xew Tuubaa jugoon na yëngu yëngoom googee nag mooy yëngu bañ jëfi te yëngu googu moo wëy Euh, misaal lay joxe rek am réew dañ koy misaale ci ab pàkk pàkk ba aw nit nekk ca nit ñooñu ñoom la ñuy wax askan ñooy ñooy peuple bu fekkee kenn ca ñoom dafa am doole lijjanti ba taxaw seen kaw kooku buur lay doon foofa ak nguur lay doon su yàlla dogalee ñooña itam la ñuy def dañ koo jële ci jenn ci yàlla yi ndax ku ne xam na ne yàlla kenn la waaye am na ñeneen ñuy gis ay yàlla ci leneen bu boobaa ñuy àtte woo ca loolu loolu la ñuy wax théocratie muy àtte goo xam ne àtte yàlla lañ koy tudde su yàlla dogalee nag ñooñe di àtte seen bopp loolu la ñuy wax démocratie su fekkee ñoom lañuy def ñoo koy defal seen bopp sukkandiku ci seeni xeli bopp ak seeni njariñi bopp loolu la ñuy wax démocratie démocratie nag mën naa doon ngën ji àtte su fekkente ne nii noonu lay demee bu fekkee yàlla dogal na démocratie aw askan di ci dox la bu fekkee askan wu ay jullit lañ ci lislaam la ñuy doxe bu boobaa bu fekkee askan leneen lañuy ca loola la ñuy doxe waaye démocratie bu fekkente ne nii mooy démocratie boo xam ne dañ lay permettre ngay élire yow en tant que peuple mais doo amaat sañ-sañ ci ci ci ci loi yi ngay tëralal ak yu mel noonu wala loi yi day jóge ci biti bu boobaa doonul démocratie leneen lu tudd te loolu mu am Sénégal ku ne xam na ne Sénégal république bi fi nekk ci cinquième république bu français moom lañ jël constitution ba indi ko fii ñu koy doxe ci la ay laïcité nekk ak yu mel noonu te ku xam ne ku xam laïcité da nga xam ne laïcité euh, li ñuy wax usuurul wusta muy moyen âge église bi dafa amoon doole lool yor fa nguur gu mag bi mu yoree nguur gi am na yeneen nguur yu fa nekk waaye nguur yee ci des yëpp itam ci église bi moo leen ëppoon doole ci ci moom lañ daan jëlee doole daanaka église bi itam bi mu fa nekkee li ñuy wax maanaam ni mu doon doxee rijalu diin yi dañ daan doxee dafa rafetut ndax dañ daan daggal seen bopp ay suuf ay kilomètres ci suuf dindi li ñuy wax galag yi mooy lu ñu teg lu ñu fay impôt wëlbatiku nit lu mu mën a def ci lu bon su ko neexee bu ñëwee day fay li ñuy wax sukkakul xufraan day fay li ñuy wax vente d'indulgence nga xam day fay ñu faral ko bàkkaaram yépp yaakaar naa ne bàkkaar nag yàllaa koy fay yàllaa koy yàllaa koy far waaye nit du ko far bu fekkee nit tamit dafa dëppoowut ak seenum njàngalin am na lu ñuy wax mahakimu taftis li ñuy wax euh, inquisition daanañ ko ci atte di ko ñii ñu lakk leen ñii ñu def leen euh, njaaxum yu dul jeex ci noonu la Europe gisee jëf jëfinu ñaaw yu ci église moo waral ak fépp bu amoon fa boo demee am na ku ñu daan wax Erasmus te génne woon téere bu ñu naan Praise of Folly muy tagg ak ndof Erasmus moomu téere boobu bi mu génnee mi ngi ci ŋàññi église bi ñeneen toppaat ci ginnaawam ba. ñi ñuy wax francis franciscan ak euh, dominican ay xarakat islahiya la yoo xam ne bi amee ñoom itam yee nit ñi ci jëf yi nuy ñaaw yi église bi nekk ak lan moo war a nekk ñu war cee tënk biñ ñu demee ba jëmmi jamono am ku ñuy wax Martin Luther génn moom itam di allemand liggéey ay liggéey yu am solo ci xarakat islahiya yooyu te moom tamit ci église bi la woon waaye li ñuy wax église protestante ya maanaam maanaam ci ñoom la jóge muy église boo xam ne ngat la doon def église bi ñu fekkoon ñeneen topp ci ku mel ne Calvin dëkkoon France Zwingli dëkkoon euh, fu mel ne Suisse ñoom it ñu liggéey ay liggéey yu mag ci wàllub islam ci wàllub réforme ci Europe ci liggéey euh, maanaam bokk na ci ñaawteef yi église bi doon def boo ko weddee ci li muy jàngale ndax moom boo xool laahut la doon jàngale mooy jàng yoo xam ne dafa aju ci théologie boo ko ci weddee daf lay sonal maanaam am na ku ñuy wax Galilée moo moo boroom xam-xam bu mag la woon moo ne woon suuf si dafa bulu dafa dafa dafa mel ne ab bul ba noppi di tourner di wër boppam moom bi mu ñëwee église bi dana ko li ngay wax du dëgg mu deltu ginaaw ngir bañ ko ko mbugal bi mi bëgg faatu dafa dafa dafa dafa gëdd ne pourtant suuf ci dafa bulu te day wëndilu biñ gëstoo ginaaw bi gis nañ ne noonu la mel jamono yu église bi di def loolu jullit ñi ñoom ñi ngi yoroon xam-xam yu rëy rëy di ay gëstukat ku ci mel ne tey jii alxuwaar simi moom li ñuy wax jebre jabre euh, ñu koy wax jebre en français mom moko moko découvrir té ab julit la won di ci bok ci borom xam-xam julit yi amna kuñ dan wax euh euh amna kuñ dan wax euh euh jabir ibn Hayyan mom mom lañ tax abul abul kimya mom ci walu kimya muy simi daf ci ay lool loolu day tegtale fi julit ñi nekkon ci walu yewute ci bir loolu nga gis ne laïcité baatub laïcité baat bi li ko jur dëgg mooy yëngu-yëngu yooyu ak coow yooyu ak église bi ni mu leen sonaloon ci lañ jëlee nañ léegi nañ ne séparé église bi ak atte gi ñuy ak ak gouverner euh, nit ñi loolu moo indi baatu laïcité comme baatu laïcité du baat boo xam ne dafay signifier séparé diine ji en tant que religion ni ki religion maanaam ak état bi bi gouverner waaye en tant que euh, maanaam séparé kanisa bi muy église bi ak état bi mais ci ci ñëw ci ci ci biir Europe bi ñu ñëwee ci ci ci ci ci jamono bi ñëwee ci ci France waaw euh, minute rek dégg ci biir ci biir euh, euh, bi France sëñ bi bul bul yàq bul yàq maa ngi ñëw bul yàq waaw gudd na mais bàyyil bàyyil rek dana kii incha allah dégg ci biir ci France Euh, biñ ñëwee ci laïcité bi gën koo bëgg ci jamonoy 1905 euh, loi euh, yu yu yu yu yu yu yu Jules lañ ñëw nag séparé diggante nag diine muy njàngum école mi yooyu yëpp ñu génn ko ci maanaam ñu génn ko ci ci ci ci ci école bi complètement ñoo génn ko ci ci ci diine ci ci dunduk état dëgg loolu nag. maanaam euh, diine lislaam ku ne xam na ne diine maanaam lislaam ab ab ak àllaaxira ak àddina benn la xul inna salaati wa nusuki wa mahyaay wa mat wa mamati lay rabbil alamin kon yàlla maanaam euh, lu mel noonu benn jullit mu wërta mën a nangu fu mel ne Sénégal ñu fi doxal am euh, réew di fi réew mu fi nekk di dox te teguwul ci diine lislaam wala bu ci teguwul tamit ñu bàyyi l'islam mom itam ay atteem li ci nga xamanteni mën nañ ko xol mu deppok l'islam ñu mën ko ci duggal Macky Sall nak dafa andi ay benn projet bo xamné pour révision euh, réviser manam constitution bi daal di jël laïcité andi ko né ken dootu ko laal l'intangibilité des dispositions relatives dégg relatives à la forme républicaine et à la laïcité lolo waralon Touba jug

au mode d'élection maintenant l'élection élection bi ni ñu koy am euh, l'intangibilité durée bi nombre de mandats yi yu président bi waaye boo duggee ci biir texte bi ci article 103 boo demee ci article 103 alinéa 7 da ngay gisati ne forme républicaine bi la vous savez ci nga xam ne loolu ay njuuñ nous ja moo waral ñun ñi euh, en tant que ñun waa Touba lañ waxoon juguñu ci république bi fi constitution yi ñu fi def constitution yu nous l'islam ci dara nous wax rek que nous fekk ñu wax nous rek ñu que bëgg bëgg ci constitution bi nous ëpp Moral non mo wara wëy nañ wax nous ñun ñëpp wëy ci suñ ci wëyé ba yalla dogal ba yalla dogal constitution Sénégal bi lañ wara avons changé buñ koy changé jullit ñi dañ ci am dañ ñu suñ toogee bokk ci mbooloo mii euh, càmbar point yi di dugal li ñu war a def bu boobaa ragal naa ne lépp luñ fi luñ fi jàllale war naa mën a jàll lii nag bu jàllee ak bu jëllut na xam ne moo ko neen doog la ñu yemale parce que constitution nag du yàlla souveraineté ak peuple moo ko moom boo leen tegee luñ mënta tegu saa suñ koy teggi dañ koy tegg xotti ko sànni tëggaat la leen teg loolu mooy li nga xam ne war nañ koo xam réew mi nag bi fi Macky Sall toogee léegi ñu ngi gis ay agression yoo xam ne mi ngi koy def nit ñi ci seen diine ndax bi mu toogee lañ tàmbulee dégg ñu naan sëriñ dégg nga citoyen ordinaire lañ ku xam ne ku ne xam ne sëriñ ci diine l'islam ci Sénégal mooy kilifa gi nga xam ne dañ koo dénk lu réeréy nit ñi suñu amee soxla ci moom lañuy ñëw ci wàllug diine ak wàllug leneen kon kooku ku ko wax euh, euh, citoyen ordinaire ordinaire nga tooñ nga mbooloo bi nga xam ne topp nañ ci ginnaawam te démocratie nga wax nag démocratie ko wax wax am ay nit ñuy àtte seen bopp nit ñooñee nag sëriñ dañoo fonk sëriñ nag teg euh, jiital ko te sëriñ it wunduwul kenn ku toog ci barabam di noosaka waaye day tekki ki nga xam ne dafa dafa dafa xam diine lislaam nit ñi gëm diine mu ñu ñu jiital ko pour mu leen di won wu yoon loolu mooy mooy mooy sëriñ. loolee nag foo laalee loolu laal nga symbole l'islam ba muy waxat naan euh, ca ca ca naan kurus ak wurus tekkiwuñ ci doole euh, tekkiwuñ amuñ njariñ ci réew mi it wurus xaw muñu lu muy tekki waaye kurus xam nañ ne diine lislaam ko moom dégg nga yu mel noonu ba daara ji ñu fi lakk euh, am na ay temps yu néewa a néew daara ju amoon ca nuñ koy waxati dëkk bee di nuñ koy waxati dégg nga Medina bi mu takkee ba léegi bër bër ci démb dañ ko anniversaire am dañoo ñëwaat ñu dundalaat ko te loolu xeeb diine la yëpp diine la ndax ku ne xam na ne yeneen ayib a ngi am feneen te defuñu ko loolu te ku ne xam na ne daara bu ay problème nekkee ci daara ja itam daara loolu taxul bu jug problème yooyu mën nañ ko régler te jàll waaye toqal daara di wéy di ko def di ci xeex diine rek lay tekki ñu gisit

danoo war a am fulla ci bopp dégg nga liñ ñu mën a defal bëri na boo xoolee fii làkk euh, su làkk yi ñuy wax ci réew mi tey quatre-vingt-quinze pour cent ci sénégalais dégg nañ wolof dégg pël dégg weneen làkk dañ ko war a dugal ci suñ yii dugal ko ci école yi ñuy jàng mais est-ce que gis ngeen ko ci maanaam lu am njariñ li war a nekk ci ci lii gisuñu ci dara lu leen amal njariñ rek lañ gis bëri na lu ñu mën a wax fii loo xam ne boo xoolee article vingt vingt six da ngay gis ne euh, ñaari tuur yi ci nekkoon dindi nañ ko te boo demee ci consti euh, consti euh, ni ñu koy waxati constitution bu njëkk ba mu ngi ci yooyu yëpp ay laaj bat la yoo xam ne kenn xamul lu ci jublu ak donte xam nañ ne article 33 maanaam reconnaître na ne ay ah ñaari tour mu ngi ci waaye nag le fait ñu dindi ko rek am na lu mën a signifier dégg nga bi mu fi nekkee itam fu ne mu wër fa xamale ne dafa bëgg a wàññi mandat bi ku ne xam na ne kenn santu ko woon mu wax ko te réew mi itam sept ans la ko la ko faloon kon bu bu delloo ginnaaw loolu moom la concerné mais ñun liñ jortu mooy euh, juróom-ñaari at lañ ko faloon waaye li am solo mooy euh, euh, maanaam wafa wafa bil wahd muy muy muy muy muy dafa am solo kon léegi ci gàttal bëggoon naa ci gën a kii mais l'essentiel jàll na ñu ngi leen di sant bu baax a baax asalaamaaleykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أمتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جليدي مبكي mbokki taalibe بنيو لين نيو سيار لين nuyoo siyaar leen ci bi ni ko programme bi laaje woon li aju ci waxtaan wi nga xam ne mooy yaatu sëriñ Moustapha def na ko waaye mbooloo yi nga xam ne ñoo dajaloo ngir woote xalaat ci xew-xew bi ñu toll woote ci barab bi am déclaration bu ñu tënkoon bokk ko euh, moom la Serigne naa leeral léegi ci français ñu war ko leeral ci wolof kon loolu euh, gaawu ñaar fukki fan ak juróom ci rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci gàddaay gi dëppook juróomi fan ci weeru mars 2016 rabitatul madaris al qur'aniya fi Sénégal muy mbooloo mi lëkkale daaree alquran yi section wu Touba daairatu rawdu rayahin daairatu muqaddamatul xidma daairatu quratul ayni daaira quddaamul xadim ñoo dajaloo génnee xalaat bii gannaaw bi ñu sante yàlla julli cërënt bi ñu wax ne dañoo seetlu ne am réew walla mbooloo dañu war a sàmmonte ak seeni pas-pas seeni aada seeni cosaan ci képp ku leen di tëralal ay yoon di leen ko nosal kon ci loolu lañu gise ne xeet wu nekk am na àq ak sañ-sañ ci soppaxndiku ci ay dundiinam te bañ koo tënkal moroomam loolu lañ cay dégge mooy kon tënk su fekkee tënku suñu borom rekk moo sañ a sakkal xeet wi lu ñu war a tënku naka noonu ñu gis ne e, senegal mbooloo mi bari nañ lool te wuute waaye ñépp am nañu ay tënku ci diine ak ay jikko ak yi ngëm-ngëm loolu ñu war koy bàyyi xel ñu bàyyi xelit société sénégalaise ci ni nga xam ne noonu lay bàyyi xel ci wàllu njaboot ci diggante euh, góor ak jigéen loolu it ku leen di sàkkal di leen rëddal di leen defal ay luwaa war naa bàyyi xel ci loolu naka noonu eh, Sénégal réew la moo xam ne ñi fi dëkkee ñépp ak lu ñu wuutee ay barab ak i làkk dafa mel ne ñoom ñëpp am na lenn lu ñu maase muy bañ ak ngóor jigéen ak lépp lu koy niru ba tax képp ku leen di sàkkal ay luwaa war a bàyyi xel ci lool yi waaye it sàmmoonte nit mbooloo mu nekk nañuy sàmme seen jamono ba duñu bëgg seen morom mu leen tënk ñu sàmmal ña nga xam ne ñoo topp ci ñoom it ba bu ñu leen tënk noonu it lañuy bàyyee xel ci lépp loo xam ne mën naa bijji nit jëme ko ci yàq ëmb wala avortement gannaaw bi nga xamee ne kon mbooloo yi ñu wax muy rabitatul madarisil quran di rawdu rayahin di muqaddamatul xidma di quratul ayni di xuddaamul xadim dajee nañu waxtaan dañoo gis ne e, gouvernement Sénégal muy état bi ci lii mu toll foofu nag am na leeral bu ma bëgg a def ngir yi nga xam ne moo ci tab bi tey fii ñu toog di wax ci ñaar la ñuy waxee lenn li mooy fukki tomb ak juróom yi nga xam mo moo ne ci constitution bi lenn li moy procès de loi bo xam ministre de la justice wala ministre de la justice bi fi sotati ci su toll nii sos ministre de la justice Procès de loi am boobu nga xam daf ko jëmele ci ak gone ak jigéen ak kër te safaanoo ci ak alcorane momit dafa am ay tomb yuñ ca tànn su ko defee suñu bàyyikoo fii ku dégg ñuy wax bu kenn ne sëñ daara yi wala ñi dajee woon dañoo ëppal ndax li ñuy wax nekkul ci constitution bi lu luñ la wax te nekkul ci référendum bi mi ngi ci projet de loi bi ñaar yëpp lañ boole yëpp la ñu tiim projet de loi bi li ñu publier barki démb ci journal officiel mi ngi nii ñu tiim kon xam nañu ko mooy ci référendum bi waaye ñu la wax rek ci diggante ñaar yooyu la ne bu ko defee kon ñu ne eh, gouvernement bi sàkku nañ ci moom ci référendum bi lépp loo ci xam ne suñu ko watee dañuy wax ne jeex na kenn dootu ko mën a soppi feeg téeméeri at feeg junniy at feeg juróomi junniy at ku ñëwati doo ko mën a soppi loolu alquran rek moo ko yeyoo waaye nit buy tëral na tëral boppam bu ëllëgee keneen ku ñëw seet la gën ci moom mu tëral ko bi ci topp Eh, mooy ci code bi constitution bi fi nekk bu Sénégal article 17 bi article 17 ci constitution bi fi nekk te bokkul ci tomb yi sax ñu laal ko waaye ci constitution bi la ne ginnaaw dañuy laal rek dafa wax ci wàllu sëy te waxu ca leer dafa tudd rek ab sëy tudd ko ci diggante ay nit te leeralul ci góor ak jigéen te sëy li ñu ci xam ci aada xam ko ci xel ci góor ak jigéen lay sosu ñu wax ne kon article 17 boobee na ko soppi wax bam leer nañ ñi ne sëy ci diggante góor ak jigéen lay dox njaboot gi xel nangu ci ab sëy lay toftaloo lii la mbooloo yi wax bi topp ci loolu mooy ci code de l'enfant boobu ma wax te ministre boobu de la sos ci sosati ko eh, soo ci demee ci section 2 ci chapitre de bi dafa wax ci wàllu kilifteen wax ni code boobu wax ne dëgg la sax nee na code de la famille bii fi nekk nee na boo ca demee kilifteen ci kër ak kilifteen ci doom code bii fi nekk mu wax ne góor la ko jox waaye ci de la femme bi waaye code bii ministre de la justice di sos nee na bis bu noppee kilifteen góor dootu ko yore kër góor ak jigéen ñoo ca yem kiif kiif kenn du ci ëppale sa morom doom bàyyi dootu ko yilif waaye ñëpp a koy séq te loolu njaaxum gu rëy la mbooloo yi nee nañ gouvernement bi na dellu gannaaw ci loolu te def li alquran wax naka noonu boo demee ci ba tey code de l'enfant boobu ma tudd léegi bu ministre boobu article cinquante ba eh, dafa wax ne gone bu amagul fukki at ak juróom-ñett kenn sañu koo maye kenn sañu koo may muy góor muy jigéen bu amagul fukk fukki at ak juróom-ñett kenn sañu koo maye kenn sañu koo may ku ko def déli nga def ku def déli nag xam nga la ci yoon wax waaye faf ministre bi dem na ba wees foofu ci code boobu nee na waxuma la sax di leen may waaye gone gu jigéen gu amagul fukki at ak juróom-ñett ku ko ne dama laa bëgg a bu ko naqaree yoon dana dal sa kaw gone gu góor gu amagul fukki at ak juróom ne dama laa bëgg may bu ko naqaree yoon dana dal ci sa kaw ñu ne ko dellul gannaaw ci loolu suñu yaay Aïssa nekk na ci kër yonent bi diir bu yàgg bi fi yonent sa alayhi wasallam di jóge fukki at ak juróom-ñett la kon loolu àndut ak lislaam àndut ak ki aada mbooloo yi wax nañ ne gouvernement bi na ca dellu gannaaw naka noonu article 62 ba léegi loolu mi ngi ci code de l'enfant bi nga xam ne ministre de la justice moo ko sos moom it boobu daf cee wax ne jëpp jigéen joo xam ne dañ ko siif ba mu ëmb am na sañ-sañ ci dem dindi ëmbam boobee te ku ne xam na ni janiin muy mbee muur di xale boobu sosu ci biir lislaam daf ko bàyyi xel dafa sellal ak dund daf koo jox àq ci dund allahumma loolu ñu ëmb bu fekkee dafa nar a lor ka ko ëmb loolu li ci lislaam wax ñépp xam nañ ko waaye burut loolu weneen lay amut ñu ne kon article am boobu mu wax na ca dellu gannaaw na ca dellu gannaaw kon lii moom mooy li nga xam ne moom la mbooloo yooyu tënkoon eh, lenn li aju ci cot bi li ci des eh, lenn li aju ci référendum bi li ci des aju ci code bi code boobu nag xam ngeen ne lu baree bari la lu gën a yaatu lii declaration bi moo mayewul ñi di ko yaatal waaye na ngeen xam ne ministre de la justice ma ko sos tiisal rew mi rek la ci jublu dara baxu ci nako sénégalais yépp ànd bañ li moy teunk bo xamné manon na gëna yaatu lool waye mbolo yi dajé teunké ko ñi muy rawdur rayahin muqaddamatul khitma qudamul khadim rabitatul madaris al fi sénégal faran bu Touba ak qurratu ayni gaawu ñaar fukki fan ak juróom ci jumaadal ula 1437 dëppoo ak 6 mars 2016 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu